di journalu faits divers yi. suba su ne suñu tëri dañu jotee altine ba àjjuma kees di xew-xewu jamono ci biir quartier yi. asalaamualeykum. waaleykum salaam wa rahmatulahi salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu. sama sama rythme. Ah. sama bi nga yàq nii. dégg nga ma. Hmm? Ah, ah, hmm, bi ma. xanaa doo hmm. xool. wax. nga dëgg. Tafa Tafa sama waa ji. nga Tafa ñu rek lay topp ndekk Tafa Tine loolu laa dégg. ñun rek lay topp ndekete. Ah. Tafa juumoo de. ñun rek lay topp. ku nekk lay laaj. man daal sama mbër Tafa la nag am naa ci droit. am nga ci droit ba ba ba kaña ba altine ñu daje xool. moom yëfu Pikine la koy def ak lii comme Maxime ne defee ay yëfu parcelle ak. voilà <laughs> nañ ko def. moom moom affaire affaire affaire affaire piki piki ni man na xam nga. est-ce que xam nga nag man est-ce que nag man à part à part à mooy sama dëkk. Pikine nga bëgg yow. man ay Pikine sax laay supporté. Hmm. Allah man yow TFC si xol leneen da caa xajul. da ngeen fi benn club man man Cambérène am na. Mhm. man Cambérène AS Cambérène. ah AS Pikine daal moo fi mooy. mooy meilleur normalement waroo ASC Cambérène mooy nuyu bu baax monsieur monsieur le président. may félicité président bu bees bu ASC Cambérène. ak président bu bees bu am am waaw. ah macha allah. ASC Cambérène xam naa ne moom am ngeen maire national 1 léegi. man daa xam naa ne am ak équipe bu ASC bu bees. de. Hmm. voilà ah, jóge na national 2 léegi ñëw na national 1. Cambérène yow eh li leen jëm <laughs> waaw mais Ligue 1 lañ jëm mais nag man AS Pikine moo dee sama xol. AS Pikine waaw man AS Pikine. ah euh, président président mhm. moo ma ci tàggat. tàggat ma ci tàggat ma ci ba ma dem ba def ba ba AS Pikine dugg sama xol. jamono ja muy nekk Ligue 2. Mhm. te AS Pikine buy joué mel ni Ligue 1 mooy joué. ndeysaan. Euh, maanaam euh, stade nu mu tudd sax. suñu stade bi dëgg Alassane Djigo te mhm. daan fees fees fees fees fees mhm. boobu ci la yéegee sax li 1 maa la xamal loolu jamono mhm. ñoom yetasaay ñoom yetasaay yooyu yëpp fekk na ma fa yetasaay man mel na non non du boobu ah. bi beneen yetasaay yoo xam la xam naa fekk na ma fa président bi nag maa ngi koy nuyu baax Mamadou Gueye Mamadou Gueye moom mooy maire ci de Kaw di président AS Pikine Mamadou Gueye lu tax ah ankay dina bokk tim tes xaar dinaa dana dinaa ko dugal tim tes. <laughs> moom mooy président ko dugal groupe nokkos xaaral ko dugal groupe nokkos. mooy président AS ah. Pikine. ah Mamadou Gueye. en même temps mooy DG DG domaine. suma suma ah Mamadou Gueye boobu la. waaw boobu la waaw. yàlla baax na. sama sama waaye wax dëgg yàlla. la baax na doomu ndeyu doomu ndeyu Ibrahima Ngom capsule la banlieue. kay dinaa ko dugal ci te tim bi incha allah. dinaa ko dugal ci tim bi incha allah. <laughs> Moussa Seck Kogne Ndoye maa ngi lay nuyu Assane Fall pompiste sama xarit mm. maa ngi lay nuyu. Sofi Kane yaayu seex yi. kon ñu démb dañ ñoo dóor. sama ASC demi final. démb dama amoon dëj démb. kan la Sofi Gaspar. sama ASC. sama rakk ji maa ngi yaayu seex yi saxaan ASC. El Hadj Malick de moom ma ko wax nee na mu démb kàkkalam moo ñu dóor. dëgg la sama waa moom nee na. Mhm. Mhm. Eh, topp sama waa ji sama waa ji nee eh, Jaraaf. ak Ale Casa ñoom ñoo yor budget commune <laughs> championnat Sénégal. <laughs> macha allah Cambérène a ngi ñëw de. topp bàyyi ma waay. topp ASC Cambérène a ngi ñëw de. ASC Cambérène a ngi ñëw de. topp boole ci a ngi ñëw de. topp boole ci ASC Cambérène. lii ma gis xale di ko liggéeyee. macha allah ndax man ndax man gannaaw Pikine man bëgg naa Cambérène ndax man. ah waa baax na. gannaaw Pikine Cambérène neex a dëkkee neex a faatoo. dëgg yàlla ndax tamit Cambérène. waaye tam neex a soxna seen i laa dem si. <laughs> dafa neex a takkee oh. soxna. man li nga wax keroog bi daal tax na daal man maa ngi. man hmm. ah, ñu dem doxantu Cambérène doxantu Cambérène alaaji. appel bu ñuy def appel di la ñuy appelé. maa la xamal lii mantu naan leen waa sama sama appel bi ñu nekk yëpp mantu toogal rek. ñoo ñoo ngay ñëw. madame moo ñu dalal tey. Ah, li ñu wax fii ah jigéenu Cambérène bu la ñëwee appel ba di ngeen gis waa ji topp nee na Cambérène danoo yaru mantu dégg gis ah, nga xaar leen nu Ligue 1 de. ah waaw. eh hmm. moom man maa ngi Cambérène. Ah, affaire bi daal TFC la. te ngeen ah ah. maam coupe nañu coupe yëpp di. tëngeej moom sama dëkku maam la. tëngeej football club ci xol dara da cee xajul. xam nga tëngeej mënuma faa wax dara. yow da ngaa bokk tëngeej sama sama maam bi jur sam papa. donc yow moom fekk baax. tëngeej yokku dëgg yàlla da nga see fa la màggee. tëngeej da nga see bokk sama maam waa tëngeej la. da nga am wàll ci TFC bu Babacar Ndiaye. tutu ànd jërëjëf. sama maam waa tëngeej la de. man daal maa nga pikin man. dafa bi maa ngi kii nee na uh, Aïda Sané mhm. mi ngi am 13 ans doomu Kawsu ak Adama Sané depuis un mois dafa réer Casamance élève la daara Médina Souane mhm. koo gis na ko 77 795 81 03 kii nee na Awa Traoré mi ngi am 10 ans doomu ibrahim ak Mariama Ballo depuis deux semaines nag Arafat Rufisque kenn gisu ko 77 477 90 05 lañ koy daal di woowee Meuk Thioub maa ngi lay nuyu bu baax la grand carreleur maa ngi lay ziar bu wér a wér euh, xale bii nag moom dafa réer euh, dafa dafa dafa dafa dafa jugee ci daara ja mu nekkoon Soumaya Kandé euh, papam maire Ramata mère Ramata mooy yaayam papam Yaaya Kandé mais moom Soumaïa Kandé la tudd xam naa nag bu ñu demee duñu wax seen vrai tour mhm. euh, mi ngi réer depuis le vingt huit octobre yàgg na euh, ku ko gis rek euh, de vingt huit juillet xaw ma septembre septembre septembre la sëriñam nag Issa Kandé la oustaz Sabali daayira Cambérène 2 moo koy laajte 78 295 83 09 Soumaïa Kandé la xale bi tudd xam naa ay six sept huit ans yooyu lay am ñu jàppale ko rek woo ko ci soixante dix huit deux cent quatre vingt quinze quatre vingt trois zéro neuf Umpaañ Mbaye souhaiteel ma joyeux anniversaire euh, chéri tam soxna moomu euh, di euh, Malick Gueye souhaiteel ma ko joyeux anniversaire Malick de la part de Umpaañ Mbaye bu taan soxna kan mhm. mm. Mbaye waaw ma xaaral mm-hmm. kii nee na pièce carte carte bancaire BHS carte d'identité biométrique ci turu El Hadji Doudou Fagui Diouf moom la réeral 77 713 41 54 diggante Tivaouane Pël Kër Massar la ko réerale mhm. kon ku ko gis rek na ko woo ci 77 713 quarante 41 54 Alioune Badara Sonko merci beaucoup moom day jàpp ci tës ci nag. Ah, moom ah, fu mu gis fu mu gis fu mu gis euh, tës ci ci ci hmm. réseau yi. wala mu gis ko ci journaux yi daf daf daf ñu koy daal di yónnee. ñu ngi koy jaajëfal. ak baax a baax a baax professionnel la baax baax baax. grand Jibi Faye. moom mooy Alioune Kane ci lañ jëm. Jibi moom mooy directeur marketing. sponsoring bu AS Pikine sa sa mm. équipe bi. Mm. moom nee na mi ngi déglu li émission bi. waaye eh, Djibi Faye waaw suma mag ak Djibi la. bu mm. sunu bàyyi maa su fay di ko baax di doomu nday Pape Diouf grand Djibi maa ngi nuyu baax nuyu ma benn waaye tutu an nee na ma fi mu nekk ni marché eh, Moussante bu Thiès ñun rek la ñuy déglu. ñu ngi leen di nuyu fi mu nekk ni marché baa ngi nii. waaw waaw dégg naa noonu la mel fële Gambie bi nu mu tudd sa bi marché Serekunda wala Serekunda waaw. wala marché Banjul. dégg naa buñ ko am na si kii de dañ maa envoyé vocal nee nañ heure tës. Mm-hmm. ñun rek la ñuy dégg. Oh. foofu noonu sa gàllankoor walaay ndeysaan. Omar Chauve sama rakk ji yal yàlla nangu ñaan maa ngi lay nuyu di la ziar. sama xuloo maa ngi lay nuyu di la ziar sama papa Ba social maa ngi lay nuyu di la ziar. ñoo amal njëriñ tës bi yal na yàlla fay leen. Mm-hmm. ñuy topp suñu suñu suñu suñu gars yi ñëw fii di leen taxawu te yàlla te yàlla tax. Euh, incha allah ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal. bu wér-wér yàlla fay gis nga yow ñëpp xam na ni ma ma mbay. jóobee ni anañu gis nga gis nga gis nga gis nga maa ngi ñëw ci waaj yàlla ba dara Sonko yàlla yàlla fay la ci tës yi ñu yónnee ñaar fukki euh, juróomi junni yi tax mu jam coroom sii hmm? lan coro waaw juróomi junni coroom sii mu daal di jam ëpp naa def. ndax juróomi junni. juróomi junni mooy vingt cinq mille. vingt cinq mille franc. Ah, xanaa moom du ko jëndal cheveux naturel. waaw ci kàttanu bi dañ ciy ñëw kay fa yàllaahu. Ah, ëpp naa def waay. kooku moom jonge na di. fàttali leen nag ne suñu waaja. suñu xarit ba. suñu directrice ba. Mm-hmm. ka tee yoon lool. yaru woon lool. <laughs> maandu woon lool. dañu jàppale ci tës am lool. nangoo liggéey lool. Mm-hmm. so sekk. Mm-hmm. kenn du ma mardi incha allah. lay am 40 jours. ci biir hmm? suuf. aywa tey <laughs> gaaw na xam ngeen ni kon weer yi gaaw na. allahu akbar moo tax at yi gaaw. déeg it gaaw. ndeysaan wane it leneen. Hmm. àdduna ku ko jàpp jàpp la. man exemple boobu dama koy jël ci faatu moomi gi. moomi. jar na ko de. amoon na lépp hmm. lu tax ñu ne bu ko nit amee war na mën a dund. amoon na ko. mën a béy te gis nga loolu lépp nag mu amoon. ba mu faatoo dañ koo teg fee. wallaahi. di ña di ko ñaanal. Mm-hmm. dem sax ba di ko di ko di ko saraxul yërmande yàlla. wallaahi parce que moo am solo. Mm-hmm. bu doon taar. Mm-hmm. am na ko lool macha allah. est-ce que gis nañu wax ko. amatul solo. bu doon. Euh, am am am am. macha allah yàlla cërale woon na ko. koy defee nii. est-ce que wax nañ ko jour boobu yaa amoon yaa richoon yaa def lii. Ah, ah. saa bu ñu koy wax dañu naan moomi ca yar ga. mu baax moomi ca teey ga. moomi ca baax ga. ak ca yiw ga moomi ca yiw ga. moomi ca rafet xol ga. moomi ca personnalité ga. Mm-hmm. moomi ca am diine ga. moomi ca am sañ-sañ ga moomi ca nangoo liggéey ba. lii nag mooy lu seddal seedeel bu nu faatoo maam ay. te mooy seede bi gën. mooy seede bi gën de bu ñu faatoo. lii lan nuy seedeel lii lan nuy seedeel moo tax jikko mm-hmm. mooy nit te kon na fet nañ defar jikko yi gis nga bu ñu faatoo suñuy jëf dong lan nuy wax moom nag wax am na ñu mel ni màmbay mm-hmm. soo faatoo ñu sule say jëf yu baax yépp waaye am na ñu mel ni mantulaay bës boo faatoo say ayib la ñuy toog di ko waxtaanee ci dëj ba Abdou Guité sekk wayoon na ko ci meer mm-hmm. nekk ci dëj di jëw bay jëw ki dee moo fi am de di deeyoo ñaata jabar la fi bàyyi ah, moom de amoon na ñett waaye dëj bi de am na ko fi ñëw tey déclaré wu ne mooy jabaram nii la meloon nag day takk di fase na xool nag bi jigéen doon bi ne nag bi de tuuti na xoolal nag mag nag yooyu lay wax te ñu ni la malaaka yërmande bi mi ngi taxaw beneen malaakaa ngi taxaw mm. lu ngeen seede ci moom dañu koy noté ci waxtu dëj bi kase ngay jëw rek di ko fàttali rek di wax ay ayibam rek. te defkat yi ñoo fi dàq euh, fàttali defu jàmbur. defu jàmbur dañuy fàtte seen i def kay wax ayibu jàmbur te ba moo ëpp ayib foofu. moom laay wax moo ëpp. ayib dañuy fàtte. te loo dee loo bañ dee fekk le fekk la te bu ko def. Hmm. nettali rek waxal nit lu ñaaw rek. tax na aussi. am na seedeel ko lu ñaaw rek. bu nit génnee àdduna la ci gën mooy seede yi rafet. lépp lu baax loo ko boo ca mënta waxal lu baax noppil. da ngay gis ku commencé wax lu baax. ñu ne ko oh, moom kay dem na waaye ah, ah. fàtte atu daaw. danga fàtte diw li mu fi defoon. da nga fàtte doomu jàmbur ji mu fi lii. da nga fàtte jëfu jàmbur ji mu fi jëloon. da nga fàtte lii da nga fàtte lii ñun nañu fexe ba suñu ginnaaw rafet. Mm-hmm. nit mooy njëkk rafetal ginnaawam laataa nit yi di ko ñaawal. yow na nga fexe ba say jëf gi nga fiy bàyyi mu rafet. Mm-hmm. ba bu ñu lay seedeel même bu nekkee naam lu négatif. lu positif li sut ko ñun jëf jooj ñoo koy bàyyi donte nag am na ñoo xam ne moom kenn mënu leen sama genre kenn mënu ñoo te teree wax bu ñu demee ci dëj ci moom faw ñu nekk ci néew bi. Mhm. nekk ci ñëw ñëw ci dëj bi ba keroog ñuy dem ñibbi. jëlee fa ay bàkkaar na wala leen jëlee fa tuyaaba. parce que jaala ji tuyaaba la mais mhm. bàkkaar lañ koy. bàkkaar lañu fay jëlee. kon sama waa ji moom i busoo yal na yàlla jéggal ko xaare ko aljana mhm. yàlla na yàlla attee ko ci yërmandeem yal na yàlla xaare ko ca aljana yi gën gën yaa kawe ya yaakaaram ya yal na ko ko subhaanahu wa taala ufal ku rafetoon jikko ku amoon diine boo amee loo def sax dina la ko wax wax koo xam reetaan wax wax la ko ci ci ci diplomatie ba doo mer doo yëg sa bopp management yëfam lool te yaa def lool man dama moom ko ca yërëmee bugaan lool. Mm-hmm. baax ndax dañuy wax support. Mm-hmm. mais moo doon support am. dëgg yàlla mënaloon ko lépp mënaloon ko lu baree bari bari bari bari. Mm-hmm. bari bari bari waaye ka xam nga ni xam nga ni eh, jigéen gu faatu mën na sax jigéen buy sëy àjjana mi ngi ci tënk jëkkëram. comme âge bugaan mi bu ñaanalee moom yi. waaw la mu ko seedeel kay doy nay wax direct bal lay doon. la rek doy na te ñaanal jox na ko caabi àjjana ba noppi. kon na xel dal nga jigéen bu naan xel na yàlla na ci samay fan jox la yow. allah. Mhm. bugaan naan kon déet man na ci samay fan jox la yow. ñoom ñaar koy ndax li nga mën ci sama njaboot gi. Mhm. est naa ko ci mën. ñoom ñaar ñu ñu koy ñu koy joxante. nga xam rek moo am solo yal na yàlla may leen xolu muñ sama yaay ki na jur jaaga maa ngi koy masaw encore une fois moom it yàlla may ko loolu. xolu muñ parce doo ko sax mën woo ndax xam. fi ko moomi sekk toll woon xam fi mu toll woon fameem doon taaw boo xam ne am na yar am na diine waaye tam yàlla mayoon na ko mu mën a maslaa ak ñëpp mën a nekk ak ñëpp yàlla na yërmande yàlla teeru ko ci aljana yi gën a kawe mhm. yàlla na rëccu jaar-jaaram ci àddina mhm. dal gi mu nekke woon ci àddina tee gi mu nekke woon ci àddina maandu gi mu fi nekke woon amoon diine lool lool lool na ko wallu yow mal xiyaam mu ne ku mën jàngal ay ixlaas nga def ko jëm talaata mm-hmm. ndax ci lay am quarante jours incha allah man ci ay dog rek nga def ko sëriñ Cheikh sëriñ Cheikh Mbacke laa it mi ngi jébbal njaam bugaan gi dani mm-hmm. daf fi nekkul woon jamono bi depuis amee waaye dina ñëw incha allah euh, jébbal si la euh, njaalam euh, ngir nag kóllëre goo xam ne mm-hmm. séq nañ ko ñoom ñaar te mu yàgg lool dëgg si dañu ko jam ëpp naa Mame Mbaye. Hmm. juróomi junni. moo tax mu jam ko moo tax mu jam ko. ah waaw. Eh, da xanaa bu doon. koo ko jam. te ndaw si. tuwul waaye mu def ko. Hmm? bor daal la ko yoreel bor. boru junni. ndaw si moo amee bor. ndaw si moo amee waa ji juróomi junni. lan de. ay xarit lañu. waaw dem ba ci ah. tuy saytaan na xaritoo daal waaye daal. fayeeku bor fayeeku bor bor bëtë fayeeku bor bor bëtë moo tax ñu commencé xiiroo ak ŋaayoo. Mhm. te mbir mi nag fa mu amee bugguma ko wax. xaalis su ma ko waxee mambay day mer. Ah, kon kon bu ko wax. Ah, dëkk ba mu amee su ma ko waxee. Ah, maa ngi ñu kenn tudd ñun ci ñun ñun ñun ñun dañoo jonge jonge ba nga xam ne. te man tamit dinaa dinaa xaw a mer. ah waaw. dañoo jonge ñun xamuñu yooyu. am naa ca wàll. ñun dañoo jonge. ah bëgguma maa mbay mer rek. maa mbay bi. yow kay wax nga ba pare. déedéet da ngay mottali. déedéet xanaa xanaa rek moo ci des sax. xam ne maa moom ñoo ko bokk. <laughs> dëkk boo xam ne su ma ko waxee nga mer kay loolu du junj maa mbay. teewit nga mer. déedéet. waaw te man tamit naa ci mer tuuti déedéet waaw. nun danoo gore nun nun nun nun danoo galant du ñun vingt cinq mille lu tax ñu jam kenn juróomi junni la ko mm. ndax vingt cinq mille xanaa doon toj ay xeer junni moo tax mu jam ko juróomi junni vingt cinq mille juróomi junni maa mbay ah, léegi nag laaj ba mooy fan la réew mi jëm ah, bu ñu demee ba juróomi junni tax ñuy jam ni dinañ ñëw de. parce que turbine tey dañuy gis ñu ne. Hmm. ca Kaolack ñi nga xam ni dañu ne woon ñoo doon lakk boroom ñaari tur yi. Hmm. waaw am na ci ñoom juróom yoo xam ne. Hmm. génn nañ kaso ba ñibbi seen kër. bàyyi nañu leen. waaw ok loolu tribune xëyee na ko tey. ñu ngi ciy ñëw léegi ak euh, Alioune Badara Sonko. waaye euh, euh, tey tribune dafa xëyee màngaan gi. mbëkk mi mbëkk mi fan yëpp mambay ci lañ nekk. fan yëpp. yëpp. daanaka ñun bañ ci commencé wax bu matul deux mois. mën na ko weesu ba léegi. ñu ngi ci ñu ngi ciy wax tey jii nag mbir mi jéggi na dayoo te duñ noppi di ci wax. Mhm. sunu waa ji Pierre Mboup. Mhm. tey moo nekk ci une sax Vox Populi. Mhm. muy wax ne euh, ñi nga xam ne at bi wala fan yii ñu nekk ni ci seddaay ba ngelaw lii ñooy dem géej. daanaka tay seen bakkan la. mu ne géej gi sedd na. waaye am na ngelaw gu métti goo xam ne cent 65 jàpp 75 kilomètres par heure mën na ko am. Hmm. te loolu mën na këpp gaal mën na faatal keneen ku dul mool. am na ñoo xam ne pierre na ñooy jël xaalisu nit ñi di leen dikk yóbbu gi te ñooñu daanaka ñooy faat bakkan yi. billaahi. mu ne ñooñu ñooy parce que xam nañ situation bi am jamono jii digg géej terewul ñu ngi yóbbu xale yi. gaal yi bon tax lu ci waaw mu ne am na ay bébé. yoo xam ne dañuy suux ci géej gi faatu mm. am ay xale yu jigéen yoo xam ne daggatoo nañu maanaam yàqu nañu yaxeete ci ndox bi la amee ay dund yoo xam ne yàqu nañu ndax bari na ñoo xam ne egg nañu Espagne sax tàkkale kook seen sago mm-hmm. ndax li ñu dund ci gaal gi démb dama star benn vidéo euh, ngir yàlla bu ma kenn envoyé ti ñi envoyé nañ ma ko depuis keroog bugguma ko seetaan démb ma sopp rek dugg mais xale yu jigéen yi xale yu góor yi bébé yi xale yi deux ans trois ans yi. mooy ñu muur noonu loolu ku ko gis sa journée yàqu. Euh, ki ñu nga xam ne nag ci xale yi dem bari ñi. Mhm. paa bii moom nee na moom moo ñaanal ñaari doomam jigéen ñu dem. Mhm. mais naka la ñaan ba pare rek xelam delsi moo xam ne def na erreur. Mhm. bi mu xoolee vidéo yi ci la xàmmee ñaari doomam yi nañ ciy dese da la bokk. xay tey denc dañ leen bërëb bu mu xamul. xamul fu mu denc ay doomam. Ah! xamul ci vidéo yi la xàmmee ne ñii ay doomam lañ. ci vidéo la xàmmee ne ñii ñooy sama doom yi ma ñaanaloon ñu dem. laa ilaaha illallaah. te jéggi na dayoo. est-ce que Pépé xam nga lii doy na waar doy na waar. Euh, euh, euh, Laps nag mu ne. ci màngaan gi dañ ko bëgg a criminaliser maanaam kun ci jàpp. daanaka jàppee la reykatu nit. Mm-hmm. yéene bi nag ne loolu est-ce que solution la. bu Boubacar Seye nag moom dafay xamle ni solution bi en tout cas du wàllug police du wàllug militaire solution bi feneen la turbine ni ko solution bi nag mooy ñoŋal dundun xale yi. xale yi sentir mm-hmm. seen boppu Sénégal. xale yi sentir ne Sénégal geneen mën na am goo xam ne du yem ci diggee rek mais bu buñ leen diggee aussi day ànd ak ay jëf ñu gis seen bopp ci réew mi. ñu gis seen bopp euh, yow mi may laaj numéro grand cœur euh, da ngay ñëw fii ci euh, rajo bi. Mhm. nga laajte madame Dramé moo la expliqué nan ngay def ba dugg grand cœur incha allah. Mhm. Chimère bu ñu mënee dem ba Badara Sonko laataa ñuy dem ci Abdoulaye Fam Touba. Mhm. ñu am Alioune Badara Sonko. en tout mbëkk mi de luñ si wax doyul. lu tax doyul. démb la la présidente des femmes euh, yi nekk KDPS je pense que mas nga ko invité sa émission boobu Mantoulaye KDPS bu ndeppe bu tëngeej mooy sa émission bu bees bi démb daf ma day wax a wax a wax a wax a wax nee na li am nii waxuñu lépp ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk ci napp mi ñoom xam nañ lii xew te buñ ko dàkkalul xale yi dinañ jeex da ngay dugg si quartier xoola buñ la waxee xale yi dee ñoo xam ne yéen a daan toogandoo daan tëmbandoo di demandoo hmm. géej daanaka gaal yu bari dematuñu géej parce que amatul mool bu ko yóbbu. gaal yu bari dematuñu géej amatuñu. gis nga sànq nee naa leen solution bi weesuwul ñu fexe ba mool yi nekk à l'aise si géej gi. boobaa duñ nga mool moom bu géej gi amee jën. na extérieur am milliard demul moom na gis jën rek. la preuve ay projet waaw euh, xale yi tàmbali caa liggéey côté 2006 après 2006 déggatoo fen màngaan gi. Mm-hmm. non. léegi rek lañ ko commencé waat. nee naa la mool yi mool yi di xam parce que gaal fi dem moo la la yóbbu. Mm-hmm. fii nañ waxante dëgg parce que gaal yi ku dul mool mënoo dawal gaal di ko yóbbu Espagne. Mm. léegi mool yi buñ dematul kenn du tëmb da nga yor sa xaalis xanaa doo yor sa xaalis di fay di demal sa bopp. dëgg donc nañ fexe ba mool yi nekk à l'aise si géej gi. moo gën waaw jën amaat. mool yi nekkee à l'aise. yàlla xam ni xool ñoom soxla woon ñoom ne géej gi am nekk en l'aise ñuy dem di ñëw. gis seen njaboot. jeex na euh, Thiaba ma koy souhaité joyeux ku baax la nag ndeysaan borom Yoof Thiaba borom Tëngéej euh, borom Médine. Hmm. donc euh, amal jàmm ju bari. Hmm. ñu dem ci na Aliou Kane borom Kaolack. ñu ñu ñu yónnee numéro bi xaaral Aliou borom Kaolack. Kaolack. ni ma koy wax trafiquant de personnalité bi. <laughs> ayca melul noonu melul bu duggee wax ma sama bopp. ak moom dañuy defante rek maa ngi koy Makhtar maa ngi koy nuyu. maa la koy envoyé WhatsApp am na ku ne ma dem na ci dëj gis ñaari jigéen ñu toog di toog ci dëj bi. di lan. di toog. yàlla baax na. <laughs> loolu de loolu nag mooy farankulay nag. ban xeetu dëj la boobu. loolu doy na sutura. foofu mooy ban xeetu dëj. dem na ma euh, ah, may. comme ça moom mu mu mu mu woo ko Alioune bu fekkee ñu déglu nag euh, toogal xaar ñu appel baa ngi ñëw daal sa kaw. Aliou jokkoo nañ ba pare. nga wax ñu euh, la xewoon foofee nga xam ne ak ñañu ñañu téye ñañu bàyyi askan wi nuñ ko dalloo. Mhm. waaw nañ ci bàyyi xel nañ ci bàyyi xel bu baax. Colobane Guy Mouride moom yóbbante woon nañ ma ci waa Sococim. Mhm. parce que ñooy ay dëkkandoo. donc yoon wi nga xam ne moo jóge jógee Sococim dem route euh, dem génne Arafat tali boobu. Mm-hmm. si RSE bi c'est pas obligatoire RSE mais au moins entreprise bi am jariñ si ñoom ñi nga xam ne. bu poussière amee ñoo koy nooy bu feebar amee ñoom ñoo cay feebar. Mm-hmm. au moins ñu gis seen bopp. Mm-hmm. nee nañu tali boobu bu ñu leen ko defaloon rek. Sococim lu mu def baax na. parce que metti na man sunu dëj bi foofu la woon démb maa ngi fa woon. également ñu ngi leen di laaj nag ku ma si gis ndeysaan muy laaj waa waa tës am na sax ku ma wax ne mantu am na koy nuyu mbaaw mhm. voilà kenn ku ñëwoon ci ci ci dëj bi mu ne mooy mooy mooy sangoom xam mooy jaamam daal nu mu ko nee na loolu moo tax moom mantulaay lu mu def dama koy teew voilà waa Colobane Guy Murit yëpp jigéen ñi rawatina maire yi nee nañ duñu mhm. duñ ñu tardé alors seen jàmbat nag moo di foofu ñu defaral leen ko mhm. nañ leen ko defaral parce que yoon bi baaxul bu tawee kenn du fa dugg sa ko sim nag bu ñu waxantee dëgg am nga ko man nga ko donc jàppale leen dara du dara ñu lay forcer du ñu lay imposer mais nga nga nga jàppale leen si lu baax la waaw parce que nag mhm. loolu RSE dëkkandoo jàmm ca gën ñoom ña ngay nooyi poussière baak riir maak yëpp waaw bu ñu ko soxlaa war ngeen dimbali mhm. mooy yoon de acca kon acca Mame Mbaye destination borom euh, Kaolack daa mel ni mi ngi ci de mi ngi ci mi ngi ci mi ngi ci mi ngi ci diggante bi mi ngi ci diggante bi Kaolack nag xaw naa xaw naa faa gëj de ba may nekk correspondant. bari woon naa fa tànk nag. léegi cees nga bëri tànk. waa Thiès nag léegi bari naa fa tànk nag. sama dëkk ba bëgg nga ko laa bari woon tànk Fatick. Cees dama fa am ay mbokk. ak ma ay mbokk Cees. yàlla war na sutura. dama bëri ay mbokk dama bëri ay mbokk loo bëgg mën a def rek noonu la. sama mbokk ngi dama bëri ay mbokk Cees. xam nga dafa nekk ci. tamit Aliou Kane lu moom it. ah Aliou ñu wax ak moom. Aliou moom it ah. li ma nee naa leen. gis ne wax annoncé nañ ko en direct bi. Aliou Kane faa mu dugg. mu nuyoo ba pare raccroché waat. waaw Aliou Kane faa mu dugg. Hmm. acca mi ngi ci de ah. <laughs> kii kay yeblu naa ko ba pare. waa man man man yeb naa ko ba pare kay fu mu nekk nii amatu dara lu mu wax fu mu nekk nii moom Aliou Kane Aliou Kane. waaw maa mbay. Aliou Kane booy génne doo tàggoo foo jëm. allo. ma ne yaa ngi may dégg. waaw maa ngi waa foofu njaay ñu ngi si jàmm naka waa Kaolack. ñu ngi fi rek ñu ngi fi rek di xaar ñu fixé ñu prix gerte gi ñu commencé jaay. <laughs> dégg naa yéen commencé ngeen bazarder seen gerte gi déjà. waaw bazarder foog moo am kay. ami ah, xaar la ñu fixé date bi date commercialisation bi. ah. da ngeen xaar ñu jàpp date ba pare. réseau bi dafay ok xam naa xam naa réseau bi neexul léegi dañ lay bàyyi ah, xam naa yaa ngi ci yoon da nga nekk di voyage yi. voilà hmm. loolu revenir un peu ci euh, ña nga xam ne jot nañ leen àtt démb ñi ñu bàyyi ak euh, ña nga xam ne ñoo lañu fa téyandi ba léegi jëm ci coow la nga xam ne hmm. moo amoon Kaolack. waaw bon pour tënk rek xam nga gars yi am na fukk ak ñett yi nga xamante ne dañ leen a jàppoon mooy bi bi affaire yi éclaté ba ñu jàpp leen placé leen sous mandat de dépôt léegi nag ñoom fee yi ñu leen di toppee dafa wuute quoi dafa wuute ñi ay offense au chef de l' état la ñi euh, nu mu tuddati ay euh, délit yu yu wuute la daal ay euh, manifestation non autorisée et cetera yu bëri léegi nag ñoom dañoo tànn juróom ci ñoom juróom ñi nag ñoom lañ leen di toppee mooy euh, manifestation non autorisée sooy fàttaliku bi affaire yi xewee fii ci diwaanu Kaolack dafa amoon euh, benn waay bi tudd Rapacha moom dañ dafa doon def manifestation ñu daal jàpp léegi bi ko jàppee nag euh, am ñeneen ay yeneen jeunes yi nga xamante ne loolu dañ ko ñaawlu ñoom ñu dem cœur de ville bu Kaolack benn benn filière rek bi ñuy tuddee cœur de ville c'est au niveau de Kaolack centre ville ñu organiser fa benn manifestation ñooñu nag la ñuy jàpp juróom ci ñoom juróom ñooñu nag lañ doon àtte démb ci tribunal bu grande instance bu Kaolack léegi nag ñoom bi leen jàppee dañ leen a wax rek ne ñoom li ñuy def li yoonaluñ ko et cetera ñoom nag ñu ne déedéet ñoom bokkuñ ci loolu seet daal nu ñu def rek ngir mën a rëcc àttekat bi mais dafa fekk ne àttekat bi am na ay dossiers yi nga xamante ne ay information jox nañ ko ko en plus procureur bi aussi moom dafa xamoon ne Euh, moom it euh, li muy toppee yi loolu lu am la finalement nag gars yi nag daal di rasu ne ñoom léegi d'accord ne ne ñoom ñoo def manifestation boobu le te amuñ ci ndogal amuñ ci ndigalu yoon daal léegi nag xam naa clémence nag la ji la gars yi def rek parce que trois mois de sursis loolu euh, suñ la ko daanee dañ la bëgg xamal rek ni nga def du noonu te bu ko defaat beneen yoon. Mhm. waaw léegi beneen affaire bi may préciser rek mooy xam nga wax naa la treize personnes lañ jàppoon. Mhm. placé leen sous mandat de dépôt maintenant set seti des ñoom seen dossier dafa dem instruction maanaam seen seen cas moo gën a grave waaw mooy délit yooyu ma la waxoon ak euh, yeneen euh, affaires yi leen di topp comme ay offense au chef de l'État ak nangam nangam ñoom nag juróom-ñaar yi yooyu seen dossier attaquat bi dafa gis ne il faut mu dem ñu ñu ñu saytu ko mooy li ñu wax instruction rek en français pour ñu xool ñu fixé leen seen date d'audience loolu nag bon peut-être mën na jël temps peut-être aussi mun nañu xool nu ñu ko gën a baralee rek ñu daal di leen àtte voilà loolu mooy li nga xamante ne mën nañ ko tënk rek ci léegi ñoom ñoom ñoom ñeneen ñi nga xam ne dañoo def yeneen délit maanaam taaloon waajooju ak ñi nga xam ne taaloon nañ këram aussi euh, ak ki nga xam ne kenn ci ñoom ku ñun dañ ko jàpp offense au chef de l'État ñooñu seen dossier kenn laalu ko maanaam bokkul ci àtte juróom yooyu allo Aliou Kane allo. ma ne xam nga ma ne xam nga à part juróom yooyu. ah. à part juróom yi nga xam ne àtte nañ leen. à part juróom yi nga xam ne àtte nañ leen. déggatuma leen de déggatuma leen de. xam naa dafa nekk ci yoon. dafa nekk ci dafa nekk ci. waaw Alioune kon ñu bàyyi ba lundi rek ñu ñëwaat ci. waa après ñu ñëwaat wala nga bàyyi ñu bàyyi ba lundi rek. bàyyi ñu bàyyi ba lundi xoola nañ ci ñëwaat incha allah fekk nga gën a am yeneen yeneen mm-hmm. information yi dégg ok am ah? problème am mm-hmm. ah. am amul problème parce que jokkoo bi dafa desee dafa desee leer. jokkoo dafa desee leer. nañ bàyyi yaa ngi dégg. non non waxal question bi yow yow laay dégg. moom côté bee lay dégg mais ñu waxal yaa ngi ñuy dégg. dégguñu. Ah, waaw waaw question bi. waa dama ne. xam nga danga ne juróom la ñu àtte. te ñuy fukk ak donc ñi nga xam ne ñoo taaloon waa ji. ak ñi nga xam ne ñoo taaloon këram ak kenn ki ñu ne dañ ko jàpp offense au chef de l'État ñooñu seen dossier kon laalaguñ ko. ñoom kon ma ne seen dossier laalaguñ ko kon ñoom demuñu flagrant délit. déedéet laalaguñ seen dossier maanaam ñeneen ñi maanaam ñi ngi jàppoon di euh, comme set yi des. Mhm. ñoom seen dossier laalaguñ ko ba tey ñoom ñi ngi tëdd di seen seen seen àtte. parce que instruction noonu lay demee parce que dafay am ay affaires yu sérieuses nga xamante ne dañ koy wut. Mhm. pour pour preuve yi gën koo ko dëgëral. Mhm. waaw moo gën a sérieux que que li nga xam ne flagrant délit rek lañ leen lañ leen toppee déjà euh, gars yi bi ñu ñëwee mooy cinq yi mu lay wax amuñu sax avocat dañoo taxaw rek gars yi wax li wax et cetera yàggul ñu vidé dossier pour wax la légèreté bi ci am par rapport ak délai maanaam par rapport ak instruction su fekkee instruction la loolu c'est c'est un cas très sérieux mmh. waaw dama tiimul sama kii ma la bëggoon expliquer mais waxoon naa ko ci dossier yu passé li ñuy toppee ñële moo bëri mmh. te dafa bëri ay ay ay ndëkk sërëf yi si nekk waaw soo moytuwul sax ñoom seen cas mooy gën a parce que euh, danañu ut ay avocats yi leen di layoo rek di euh, demee noonu. Mm-hmm. waaw fekkee dégg naa sa laaj daal fekkee ne loolu nga ma laaj ndax laal nañ seen dossier te seen dossier dañ leen jàpp rek teg. Mm-hmm. léegi nag fixé bu ñu sax ñoom seen seen euh, date procès parce que pare bu ñu instruction bi te instruction moom si yoon lañ ci wax mën na mën na jël temps de la justice le temps de la justice n'est et cetera on mhm. est ah, donc danañ jël seen temps etu affaire bi pour suñ koy àtte rek mu doon àtte boo xamante ne bu mucc ayib la ñu bañ a euh, tooñ kenn ñi ñi nga xamante ne it ñoom ñoo tooñ yoon yoon dal dal seen kaw. Mhm. ok. Mhm. jërëjëf euh, euh, Alioune Kane xam naa dinañ ci dinañ ci dinañ ci gën a ñëwaat parce que déggante bee dese neex. waaw li wax leer na. Chimère li nga wax ne Chimère garaawul. Chimère Chimère Chimère Mame Mbaye sonal na ma. <laughs> Mame Mbaye ñëpp la sonal bu neex na toog foofu na toog foofu risque rek. trafiquant de personnalité Mame Mbaye ñëpp la sonal. fa di ko wax nga jëm de. Aliou Aliou vraiment merci beaucoup. moom moom ku disponible la wax dëgg yàlla ku ku ku baax la. waaw waaw moom moom. ku ku ku disponible la teg ci. ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax moom Alioune Kane mhm. ci disponibilité bi wax na ko il fallait ñu leeral ko mhm. parce que délits yi leen di toppee bokkul mhm. ñi nga xam ne génn nañu leen bokkut ak ñi demoon taal maanaam ni ñu génnee mooy ñi nga xam ne dafa am benn waay bu ñu jàpp ci mbir mi. ñu jàpp ne waajoo dañ ko war a génnee ñu dem di def marche marche boo xam ne amul autorisation. loolu lañ leen jàppee. moo tax ñoom ñu àttee leen flagrant délit mais ñeneen ñi ci des seen dossier dafa dem instruction pour mu leer donc il faut instruction bi jeex pour ñoom tamit ñu xool ci yenn anam lan leen mën a génne mhm. pour ñu leeral ko rek mhm. il faut instruction bi jeex maanaam enquête yi ñu ciy def ci biir pour ñu mën leen a atte war a xool dañ leen di tëj wala dañ leen di bàyyi ñu ñibbi seen kër hmm. donc dossier yi dafa dem instruction moo tax ñoom seen dossier atte guñu ko laalaguñu hmm. ko mooy ñi nga xam ne ñoo taal ak ñi ñu ne dañoo taal beneen kër ak ki ñu ne dafa def offense au chef de l'État hmm. parce que ñoom it dara prouvé wul na ñoo def dañ leen jàpp pour leeral ndax ñoo def wala defuñu atte bi nag mooy firndeel lañu def lan ca def dëgëre ban ca taqee mhm. mën leen toppee ku nekk lam lay toppee du noonu la Chimère mhm. hmm? noonu la loolu la am solo muy muy muy la am solo ah euh, donc dinañ topp mm, bu ñuy àtte ñeneen nga xam ne ñoom ñoo si des parce que ku su nekk ak li tax ñu jàpp la comme ni ko mantu waxee par degré la donc ñoom seen bos peut-être moom moo gën a sérieux mm-hmm. donc loolu dinañ ci ñëwaat ci suñu mm-hmm. euh, euh, altine certainement wala mm-hmm. bés bu ñu tolloo ci àtte bi rek parce que loolu lu am solo la parce que nag li nga xam ne moo xew foofu moom ku nekk wax na ca ku nekk wax na ca voilà lu am solo la euh, sa tuubaay dafa mel ni xalit bi jël na mbir yi si loxoom de dañuy dem trafic ñu dem trafic après doog dem foofu acca ñu dem si circulation bi dem beex dikk bi kan la Papa Alé sëriñ bu mag bi wala Baye ba jaata sëñ bi daa nekk xëlwa kon Baye Massamba Diatta la Aba Diatta si da ngaa bëgg sëñ bi <laughs> bi da bu duggee xëlwa xanaa minuit lay dugg xëlwa ba 6 heures du a ah, sëñ bi nee na moom kuy ñëw ci di di bindu si bees waa diggante minuit jëm kaw ngay ñëw hmm? te boo ñëwee yaa moom rek ci néeg bi pour mu xool ndax mën nga bokk ci daayira beem déet il faut ñu xoolaat daayiram boobu. allo. Aba allo Aba Diatta. Ah, naa leen salaamaaleykum. aleykum salaam ñu ngi lay ziar Aba. waaw ah, sëñ bi de daa ñëw keroog nee day wut appartement man loolu mu jaax Aba yow responsabilité am si yow la nekk. ah man yow lañ ko teg sa loxo ne ko mu ñëw yow ci sa ci sa kër maanaam fii dafa am ay pàcc pàcc yow sa kër lañ ko ñëw indi ko. waa su ma dépassé nag sëñ bi daf ah sëñ bi mënu la yow moom mënu laa dépassé parce que yow hmm. Abba moom yaa koy jox micro muy wax. Ah. te gis nga wax ji muy wax ci la uti ay taalibeem. waaw ah, dëgg responsabilité bugaan moo njëkk. Hmm. moo njëkk. tegu ci bu Chimère Diop mii. Chimère Diop mii. bés buñ koy jàpp yow Chimère doo ci mucc. Abba nag troisième personne bi responsabilité am nekk yow la. seen bi maa ngi mujjee mais man dafa maa ëpp doole. mujjoo ci de mujjoo ci de yaay troisième bi. nee na fa lay kii ay ay ganam. ay ñoom ñëw ay ñoom yaay tuuti ñëw. man de loolu jàpp ne <laughs> moom la. faiseur de malin. faiseur de mais bu ca yemoon sax mu ne xam nga nit. sooy lekk xaalisu nit ñi sooy lekk xaalisu nit ñi te cooboo nit ñi mu baax waaye moom la muy def moo raw lekk xaalisu nit ñi. kii de. day lekk xaalisu xale yi ba pare <laughs> leen. <laughs> ba pare sëriñu Alima la. Alima moo koy jay. Alima ma def ne génn na ca. non Alima génn si de. Alima. Hmm. moo koy jay nag ay sëñ bi yaay xaw ma lan lu ne la koy wax. Alima daa sikk rek. waaw ah, man daal vraiment sëñ bi daal su ngeen ci mënee dara ngeen jàppale ma ci parce que sëñ bi moom fa sëñ bi wut appartement pour recevoir ay ganam mu xamatuma si dara. <laughs> ak di xool xale yi diggante zéro heure ba ba ba fajar. boobu lay recevoir. yaa ngi seetaan lu garaaw. nañ lijjanti ay waxoon na fi ay jàng sax yu ma bëgg a organiser ne dugul benn góor ñëw fa. abaa yaa ngi seetaan lu garaaw. bii lay bajan gox national def naa lu ma mën waaye dafa maa bi lay. ah. waa yàlla baax na. <laughs> maa ngi lay ziar bu baax waa. maa ngi lay ziar foo voilà merci beaucoup xibaaru dëgg dëkk bi di wéy di si Zik FM 89.7 bu fekkee rek da ngeen tàmmu li nga xam ñaari échangeur du foire foofu la tey tax ko métti loolu ah mën ngeen projet sànq rek la xawoon compliqué mais apparemment si fu mu toll nii euh, c'est dégagé sànq rek jaax nañ diggante fi nga mooy Stade Léopold vers l'échangeur de la foire foofu la aussi c'est pas très compliqué seulement booy yëg échangeur bi ngay ne dañoo bàyyi ko du côté su dina compliqué pour ñu bàyyi ko boor Wakam foofule ancien le régal soit da progressé jël deux hôtel Star Mermoz wala boog nga daggee noonu rek jël ancienne piste bi yaa ngi jëm fi nga xam mooy échangeur bi foofule dina xaw euh, compliqué tuuti d'autres aussi jëm foofule am ay complications mooy ñu bàyyi ko blancherie jaune mais bu leen dépassé VDN boobule euh, échangeur boobule sur la VDN c'est dégagé mën ngeen franchir sur Kër Gorgui hôtel échangeur bu Seydina

Dakar Sub Eco Bourguiba Stade Demba Diop Sicap Sacré-Cœur Liberté 5 inspection Dakar rond-point siège caisse sécurité sociale lycée John Fitzgerald Kennedy quartier Fass pour toute information complémentaire les personnes affectées par le projet PAP peuvent contacter l'unité environnementale et sociale du CETUD sise à la direction générale du CETUD route front de terre ex eh jaaykatu mburu yi ban façon col yi nga téye mburu bi mel ni ku ma bëgg a dóor. hey eh, góor gi xanaa xamoo yére yi ñuy sol pour def baseball et puis lii kenn woowu ko bagget bat lañ koy woowee. jaaykatu mburu bi bi mu tàmbalee parier ci Betclic ba léegi dafa mujj bar na ci baseball sa waay aal ma bat bi ma jéem man tamit. <laughs> baseball football basketball ak yeneen i sport yi ngeen di wër lépp a ngi ci Betclic. Vive le sport plus fort avec Betclic. kaaraangeelu naas nanu foo ak matukaay si Betclic aye nanu ko amul fukki at ak juróom-ñett. ci suba ba léegi maa ngi bombu waaye dara setu ci ah sonn naa daal. dimbali ma ngir yàlla ngeen toog ngeen tamit nag boobu ba léegi maa ngi ko benn télévision ngeen defaat ngeen tamit nag. noppal jeeg Armonia sa kër tey set tey xeeñ bu neex Ak Armonia, ce cœur des Nesnessi. Vous aspirez à une éducation et à une formation de classe mondiale, à une expérience d'apprentissage enrichissante et à un brillant Rejoignez l'université Amadou hampâté une référence panafricaine de l'enseignement supérieur de qualité. Nous proposons des diplômes habilités par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, accrédités par l'ANATSUM et le CAMES, répartis en quatre facultés. sciences de la santé, sciences et technologies, sciences économiques et de gestion et sciences juridiques et politiques. Avec plus de 2000 étudiants de nationalités différentes, nous créons un environnement culturel riche et stimulant. Rentrée le novembre Visitez notre site web www.uahb.sn e ou contactez-nous par mail contact.uahb.sn e ou par téléphone au 33 824 01 24. Dieu existe. ayca ñu jaajëfal baax waa service commercial lu am solo la. Mhm. waaw def leen ni ñoom rek. Mhm. fii mooy buntu bu baax bi. ñëw leen test bu ko defee nag seen mbir daal di siiw. ñu ànd ak yéen. ñu daal di koy jaay ñun fii ñu toog. def leen expresso. def leen expresso. def jees 111 jees. moo mën moo ëpp doole. bu dee du ma jël de. jees 111 jees. naa leen ko wax su ngeen ko defee da ngeen di am ci offre expresso yi. Mm. dekk ay boos. chimère léegi expresso xamal nañu ne montre bu bees taxul ñu nekk boos daal yu bees defuñu boos yëngal caabi oto defuñu boos xam nga kan moo ñu def boos mm-hmm. expresso mi nga xam ne moo ñu sargale fu ne lépp loo xam ne nit mën na ko def pour jokkoo ak nit te du am benn gàllankoor expresso yombal nañu ko lépp loo xam ne wàllum internet la ñu ciy jaay ci suturlu expresso ne maay tax ngeen am ca la ngeen bëgg nekk boos mm-hmm. offre yi dafa bari bari bari ba macha allah. dièse 111 dièse ngeen di def bu dee numéro 70 bi ngeen am su dee amu leen numéro 70 bi dem leen ngeen wari ko nu mu gën a gaawee ngeen def dièse 111 dièse ngeen mën a xool offre yu bari yi nga xam ne Expresso daal dina leen koy indil net 2000 maanaam crédit bu 2000 francs bu ngeen ko amee di am cinq giga ci Expresso valable 30 jours 30 jours ngeen am cinq giga ak 2000 francs loolu amul benn opérateur bu leen ko mën defal moo mën ëpp doole. moo ëpp doole. moo fi ne. mooy valider boos gi ci réew mi moo fi ne. doon boos ci réew mi moom rek moo koy valider. Hmm? keneen ku bëgg doon boos moom. da ngay nax sa bopp rek boo jaarul si expresso doo doon doo doon boos. da ngay xaar sax. da xaar moom man moo ëpp doole. fi ñu dem. ñu dem ci ci ci li ñëwoon démb. parce que démb. lu mhm. ñëwoon ci benn jàmmaarlo bu am diggante benn village ak ay Baye Fall. Mhm. ginnaaw bi ñu leen nee ñoom dafa am. mbir yoo xam ne dañ koy tere te ñu ko fay def. Mhm. bi ñu demee nag jàmmaarloo dafa amoon. Mhm. ba ñu am kun ca tiire bal mu daal di faatu. Mhm. dégg ngeen nag démb waa dëkk ba li ñu wax parce que ñoom nee nañu gisuñu bal buñ tiire te gisuñu ko faatu. mais nag kàddu yi ñuy déggaat nii dina weddi loolu. parce que am na ko faatu wax nañ turam joxe na ndigal ba denc nañu ko. sëñ bi nag nga xam ne moo jox ñi mu jox liggéey bi nee ñu moom moo ni leen mbir mi. téye na ko ci loxoom donte enquête euh, ubbi nañ ko ci mbir mi ngir leeral ko démb nag comme dafa benn parti boo xam ne wax nañ Euh, ñii di waxaat tey dañ leen di ubbi suñu micro ngir ñu andi ay gindeeg ay leeral. Mhm. ay ca chimère ñu dem déglu leen ñëwaat. auzu billahi min ashaytan rajim bismillahi rahmani rahim allahuma salli ala sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman ñoo ngi nuyu cheikh mamadul muntaxa mbàkke bachiru di ko ñaanal suñu borom mu yàggal ko fi te may ko ak wér di nuyu cheikh sëriñ amdi fall moom suñu moodu mbenn mi nga xam ne ñi ngi toog ci ëttam bii di ëttum maam cheikh ibrahima ko ñaanal sama yàggal ko fi te may ko ak tabaraka wa taala mi nga xam ni lépp lu xew rek ci moom la bàyyi ko di eh, yeesalaat nag suñu laxasaay ci suñu digganteeg Serigne Touba Xaadimul Moustapha mi nga xam ni moom la fi sunu maam Cheikh Ibra Fall nekke woon di ko liggéeyal di sàkku ngërëmam sax ci ay ndigalam loolee rek ci la ñu fas yéene nekk ba keroog ñu koy fekk mu mel ni nag am na lu xew loo xam ni xew-xew bu tiis la kon dañu ci jaale mbokki Serigne Moustapha mi nga xam ni ñoom la ñoom la seen njaboot dem ginnaaw bi mu nekkee njabootuk Cheikh Ibra Fall waaye bi mu nekkee njabootuk euh, euh, Cheikh njabootuk maam Cheikh Ibrahima Fall bokk tam ci njabootuk sëñ Modou Lo Issa euh, mu ngaabu kon noo ngi leen koy jaale di leen wax sigi leen ko diggaale di bokk ak ñoom tiis yi tamit waaye muy loo xam ne nag dañuy nangu dogalub suñu borom ndax moom mooy ki nga xam ne moom la soob loolu sëñ Tuubaa naan fa kullu ma asaabana lam yakuni yuridu an yuxti ana fi zamani fa maani lépp loo xam ne mooy nañu rek suñu borom moo namutoon mu dal ñu waaye lépp lu ñu dal suñu borom moo namutoon mu moy ñu kon ñu di profité di leen leeral ne euh, li nga xam ni mooy ndigalu Serigne Touba radiyallahu taala anhu jige woon ci Cheikh mun taxaay ñëw ci maam Cheikh Ibrahima Fall di Amdi mu moom Serigne du Mbend ndigal loolee ñun ci lool rek ci lañ nekk te duñu ko wàcc mukk dañoo xëy jot ndigal ci sëriñ bi ci liggéeyal ko ci dëkkam bi muy sàmmal ko war may Touba loolee nag euh, moom la sëriñ bi euh, fës yéene du ko wàcc benn yoon lenn nag soobuñu ci lu dul ndigal loolu lenn lu ne nag ñu ngi koy dégg ci li nga xam ne moo xew waaye ki nga xam ne mooy sëñ Moustapha Niang moom bokkoon ci kenn ci ñi nga xam ne demoon nañ foofee ngir jooxe ndigal li leen sëriñ bi santoon te loolu mooy seetal dëkk bi laabal ko ci li nga xam ni mi ngi ci biir dëkk bi te méngoowut ak dëkk bi loolu mooy li nga xam ne moo leen taxoon a jug ba ñu demee it ñañu fa fekk di ñoo xam ne xaj na ñoom dañoo tërlu ci fas yéene def fi loo xam ne wuute na ak li nga xam ne moom la sëriñ bi bëgg loolee nag moo jur li am lépp am waaye eh, ku ne xam na ni Baay Faal yi eh, bu fekkonte ni dañoo jug dem fa ngir lor kenn maanaam lii xew mën naa xewee ci seen wàll ca wàll geneen wàll waaye ki ki bakkanam rot ñu ñàkk ko ci Baay Faal yi la bokk dégg nañ nag ñuy wax ne eh, wax nañ ni yoruñu woon ay ngànnaay ñoom defuñu loolu waaye loolu moom yoon mi ngi ci te xam ne ñi koy saytu Euh, ñoom xam nañu lépp wala boog danañu am na seenu xereñ may na leen ñu mën a xam lépp sëriñ bi nga xam nag moom la ñuy liggéeyal muy Cheikh Mamadul Muntaxa moom moo yónnee ci sëriñ bi xamal ko ni ko loolee nañ ci ne tekk te déglu ko ci la nga xam ni moom moo ko ca war dana def lépp noonu nag ndigal rek moo ñu yóbbu woon ci liggéey boobu kon ndigal tam moo ñu wax ñu ne tekk dal euh, ba jot ndigal loo xam ne moo wute ak loolu li li ñu li nekkoon nag muy liggéey bi di saytu war mooy dëkk bi loolu moom deltuwuñu ci ginnaaw te ji ji waxtu wi may waxee ñi ci war a gont gont nañ dem ci terrain bi ngir liggéeyi loolu la nga xam ne tamit moom la leen sëriñ bi santoon rek muy liggéey ko ci ak dal te xaddu damm loole ci la ñu nekk xaj na nag ñi nga xam ne ñoom la ñuy fekk ci jotaay yooyu ñoom ñu féttéerlu ci am pas-pasub li sëriñ bi bëgg ci dëkk bi duñu ko def ba pare boole ko nag ak bëgg a doxee aw sañ sañ-sañ boo xam ne méngoowut ak li nga xam ne moo war a am loolee nag day mel ni moo indi lii xew xew ci ndax ña ngi cay wax seeni yu baree bari yoo xam ne duñu dugg sax ci détail yooyu ci gàttal daal li ma bëgg ñu xam ko mooy doon muy saytu war mooy dëkk bi tey jii la ñu gën a nekk ci loolu fii may waxee gi yéen ñi ci war a gont dem liggéey ñi ngi ci liggéey bi waaw la sëriñ bi wax nag ci nag ñu ne tekk déglu ko ñun li ma waxoon rek laa taf aloo shay'an bi xayri isnin fal isnu shartun fi xabooli sha'ni sëriñ bi moom jëfal ko day tax nga daje ci ak ngërëm mooy nga tekk ko ci ndigalam lim ñu sant nag kon mooy ñu ne nañu tekk te déglu ko ca wàll googa loolu noo ngi ciy déglu suñu jëwriñ ji nga xam ni mooy suñu am di faal moom suñu moodu mbend moom ma ngi ciy déglu sëriñam bee di Cheikh Mamadul Muntaxa lu mu la ñu nekk yéen démb yéen a demoon fi nga xam ne fa la mbir mi xewee la fa xew ñoom bi biñ ko déggee ñoom dafa yëkkati ay kàddu wax ne am na jur gu fa newoon dem nañ te yéen nañ jàpp ne yéen a ko yóbbuwaale wax nañ ne fetal yi nga xam ne ñoom ci a leeral ñuy moo tax ñu àddu ci wàllu googu waaye fetale moom ñoom ci seen bopp xam nañ ni ñoom ñoo soqi ay bali fetal jëmale ko ci mbooloo mi nga xam ne moo ci murit yi nga xam ne ñoo nekkoon ci Baye Fall yi ba bakkan roti ci loolu leer naññ la waaw am na ci te yëmuñ sax ci kenn kii faatu am na keneen ku bokk ci ñun koo xam ne wala ñaar ñoo xam ni ku ci ne dóor nañ ko bal ku ñuy wax sëñ euh, Bachirou Fall ak ku ñuy wax euh, Cheikh Diop ku ne ci ñoom am na màndarga boo xam ne xaj na li dal kii dalu dalu leen waaye seeni pexetam bu juboon ci ñoom fii ki jaar rek fa foofa la ñooñe di jaar kon bu ñu waxee loolu ba ci jur googu ñuy wax am na ci yoo xam ni ay oto ñoo dal ci seen kaw oto yee jaar ci seen kaw bu ñuy wax ne dafa am yeneen yu ñu fa jël fii de mbooloo mi nga xam ne bu ñu bàyyikoo ca foofu ñoom ñëpp fii sa fii lañ sosi amut ci mbooloo mi àndoon kenn ko gis benn xar wala benn bëy woo xam ne indi nañ ko fii waaw ndax ñun loolu taxuñu woon a jug soxlawuñu ay bëy soxlawuñu ay xar jooxe ndigalul sëriñ bi mooy li taxoon ñu jug dem ci eh, terrain ba sëriñ bi ni mu bëggee dëkk bi set mu set loolu rek moo ñu tàbbaloon ci liggéey bi looleen ña nga ca ba tey tey a wéyal hmm. loolu noonu dégg nañ ko bi yooyu noonu yëpp biñ leen laajee ñoom dañ ko weddi muy leeral yoo xamante ni def nga ko ci amam am solo tey bu fekkee am na message boo yëkkatiwaat parce que boo xoolee suba léegi mbir mi bëri na yéen talu leen woon sax ngir wax ci ndax yéen a ngi woon ngir nu ngeen fexe ba de jébbal si boromam ki nga xam ne mooy am mi ne da ngeen jëkk a ñëw uh, lu oto yoo xam ne demoon ñëwee dañoo dajji bunt yi dal seen kaw naan génn leen ñu leen loolu loo ci mën a leeral ñi nga xam ne ñoo lay seetal <laughs> la yoo xam ni wax yu ay ay xuraafaat la rek waaye eh, ña fa dem la leen tax a jug lu fa nekk la ci ay tilim tilim yoo xam ni dafa méngoowut ak li sëñ bi bëgg ci dëkk bi te sant ñu loolee ñu jële ko fi loola moo fa nekk ñu demoon di ko fa jële demuñ fa woon it ngir maanaam jote kenn ñu leen di sant su fekkonte ni bi def nañ ko foofee yëpp du fa duñ fa àgg tey la invitation yooyu yëpp jóg ñoom ñoo njëkk a jóg soq ay bal ci kaw mbooloo mi ba lii ci xew am waaye amut kenn kuñ mën ñoom mënuñoo wax ni jëmale nañ ci ñoom benn ngànnaay boo xam ni ngir lor de mbooloom Baye Fall yi xëjuñ ci kenn kon su fekkoon wàll googu moo leen fa yóbbu yaakaar naa dina tëdde neneen te ña fay dem it saa su ne dañ leen di ñaax ci bu ñu jugee di dem wax leen nañu war doxe ak li sëriñ bi bëgg ci ba lépp am te xaddu dam kon loolu moo tax ba nëgë ni déggoo ñoom ñu wax ne kenn ci ñoom lor nañ ko waaw la am ci ay gaañu gaañu yëpp ñoom ñoo ko def ba loolu amee it li ñu def mooy jël ki nga xam ne bokk na ci ñun te ñu lor ko indi ko seet nañu ko jébbale boromam xaj na nag euh, version yi bari kenn ku lii ma la wax mooy li am waaw te wama saxit naa illa bi ma na ñoom sax am na kenn koo xam ne ni nee nañ gaañu na si ñoom dafa génnoon yor benn caméra boo xam ne xaalis ak joon wax nañ sax li mu xaalis bi ne ëpp na juróom ñett fukki junne kalpeem dañ ko yóbbaale lépp seen kaw lañ ko teg tey ji yéen seen bi ngeen dem foofu noonu dafa am ñeneen ñoo xam ne danoo nekkoon ci kuréel gi ñu bokkut seen wala bi ndaje mi baree foofu noonu ku nekk jógee fenn ñëw euh, mbiri naka la tëddeewoon foofu noonu waaw xam nga da ci am yoo xam ne moom comme bi yëf yi xewee mujj na foofu mbooloo bari na fa yooyu ñuy wax nag ñoom ñoom ñoo ko yëg waaye fii nga ko waxee ñun lañ koy soog a yëg kenn ku bokk ci ñun ku fa jëlee lenn amut ndax ñi ñi yabaloon ñuy liggéey ay nit lañu yoo xam ne ci ndigal lañ tënku saa suñu jugee dem ci terrain bi danañ leen yàpp te bu ñu ñëwee lépp lu xew danañ ko delloo si waatu ko te ay kilifa lañ leen di booleel yoo xam ne fu ñu leen joxañ fa la jëm fu ñu fu ñu leen leen euh, ba leen ñu baax amut kon lenn loo xam ne def nañ ko ci lu mel ni yooyu ñuy wax xaj na nag tuuma moom yàgg na fee am waaye li leer te daal mooy euh, faat nañ bakkan ci ñun gaañ nañ ci ay nit ci ñun moom mbir la yoo xam ne dëkk bi dafa am borom te ñun it dañoo tënku ci kilifteef ki ñuy loo moom la ñuy déglu baat ba bàyyi ko waat ci moom ñëw ci ñun ca loola rek la ñuy concentré wu ba kere ñuy gis loo xam ne moo dindi lool. ñoom am na ñoo xam ne nee nañ nañ leen loxo loolu waa police ko def ñu jar ne dégg nañ ci ñenn ñu ne yéen seen kuréel gi am na ñoo xam ne teg nañ leen loxo police def ko loolu loo ci mën a leeral ñuy seetaan. Euh, loolu moom ñoom dañ ko wax waaye amut xam naa daal am na ab lim bu ñu ci jàpp téye ko loolu gendarmerie moo leen téye ñoom ñi ngi ci loxoy yoon loola ca ñoom la bokk loolu ñi ngi ci loxo yoon la ca yoon war a def ci enquête mi ngi ci di ko def la ca war lépp it ñoom xereñe nañ ko te danañ ko def bu soobee yàlla kon nañu bàyyi lépp ci loxoy yoon rek. jërëjëf sëñ Bada nga ko subaak léegi mbir mi ba mu xëyee ba léegi yéen a ngi ciy doog rek ku nekk booy wax nga xam mbir mi fii ngay jëlee ki ngay daanale ban message lay doon. waaw xanaa nit ñi ànd ko dal rek te bàyyi wàññi maanaam wax ji nga xam ne li ñuy wax xamuñu ko. waaw bu ko defee ne ñi nga xam ne nag dañoo tënku ci kër Cheikh Ibra Fall li nga bi santoon rek ca loola la ñu nekk ba tey fas yéene baatub Serigne Touba bi daal jëy jug jëm ca kaw te du laal suuf li sëriñ bi bëgg ci dëkkam bii moom ñi ngi gën a engagé wu tey jii fas yéene xam le ne maanaam ni ko sëriñ bëggee dana ko ne amee loolu daal mooy suñu kàddu yu njëkk mooy suñu kàddu yu mucc li ñu sëriñ bi sant ña nga ca te duñ ca deltu ginnaaw mukk ñu digganteeg sëriñ Touba te lépp ñu jaare ko ci Cheikh Ibra Fall murid bu mag boobee nga xam ne ba mu jaayanteeg sëriñ Touba ca Mbàkke Kajoor mooy li fi indi lii lépp ñu di leen xamal ne ñun fa ñu nekkoon démb fa la ñu nekk tey sëriñ Muntaxa bi lii xewee taxaw na ci ni mu ci war a taxawee yónnee na it fa saase wax ne nañu jàng ay kaamil te yéene dogal bi Moustapha Niang mi nga xam ne moom moo fi bàyyi ko sama borom jotale ko ci laata ñu ko denc loolu ni ko sëriñ bi waxe woon def nañ ko la ko ca war lépp def na ko ndigal yam séq ak sëriñ bi tam wax na ko ko sëriñ bi jottali nañu ko loole xam nañ ko te ña nga ca kon képp koo xam ne am murit nga wala nga yaakaar sëriñ tubaa wala nga bëgg lenn ci moom ëllëg na nga xam ne lii la sëriñ tubaa santaane muy ñu laabalal ko dëkkam bi seetalal ko ko ba li fi war a nekk ne fi lépp loo xam ne méngoowut ak dëkk bi ñu jële ko fi loole nag sëriñ baa ngi ciy woo ñëpp tey jii lañ ci gën a engagé wu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yoo de dem nga bay ma man uh, jëf euh, peut-être nouvelle yi ci mujj moo di xalif bi dugal na ci loxoom donc mm-hmm. yàlla baax na na lépp sedd rek. Mhm. waaw parce que ñu ni neen dëkkandoo jàmm ci gën. Mhm. lu am solo la. Mhm. Euh, mante mu am ñoo xam ne nag dañ ma yóbbante. mu di euh, diabétique yi. tey laa seeni kaay def see ñëw. Mm. alerte rouge bi nga xam ne centre diabétique Marc Sankaré ba Bass Ndao daanaka def na ko ci. ndax xam ngeen ne kon bés bu yàlla sàkk dina am euh, kenn ku nga xam ne ni diabétique la ñu rocc benn ci ay baaraamam. benn ba ñaar. bés bu yàlla sàkk. ci réew mi. waaw euh, ci benn hôpital kese. chaque jour ci benn hôpital. chaque jour. feebar la bu nga xam ne nii boo jëlee ja nit cent cent euh, ay cent personnes yoo xam ne dañoo feebar quarante yi diabète moo leen daal. donc nag nanu xoolaat am na yoo xam ne si héréditaire. Mm-hmm. mais am na si yoo xam ne sama saar gi ñoo koy provoqué da ngay xëy si suba ngoon li ngay lekk yëpp suukar la. nee nañ ci hôpital bi yëpp. téeméer boo jël ci ñoo xam ne wàññi nañ seen kër seen cër. juróom-ñaar fukki yëpp soixante pour cent. ay diabétique lañu ay diabétique lañu. te centre Elisabeth bi Néguel Tapé. Mm-hmm. foofu da doon refuge diabétique yi. Mm-hmm. xam nga diabétique dañ naan warul am dagg-dagg. Mm-hmm. waaw kay. hygiène la laaj. suñ ko daan am. centre boobu mu leen daan faj ndànk-ndànk ba nu yegg ba duñu yegg. ci amputation. centre ba des mois ngi nii dafa tëj te nit ñi waxuñ ci de. dafa tëj dafa tëj. keroog laa yëg ni sax ndekete mbir mi privé la pour un hôpital public ah! la. association la xaw ma fondation. mais la ca nekk lépp ci leen ko waxee doy na waar. kon ñoom daa ko siy fay. xaw ma mairie bu Ndakaaru la xaw ma état bu Sénégal. mais war nañ lijjante centre Elisabeth. ña liggéey ñetti weer jotuñu salaire man sax ña liggéey sama problème la mais diabétique ya fa daan dem di def traitement. Mm. ci dagg-dagg jabet. Hmm? te moom moom jabet moom boo daggee moom ñu dañ naan mooy loolu. même même bu fekkee jabet gi sax am na ci ñoo xam ni dañuy piqûre sax baaxul. man mm-hmm. sama rakk da doon da doon piqûre far piqûre bi mooy tànk ba néew. waaw <laughs> ah, da koo photo du envoyé ma ko. non jabet dafa am lu mu laaj. ma ne ko nag faaw nga dem ci hôpital bi ñu woon la ni ngay piqûre normal dafa jabet. hygiène sama rakk la hygiène ak bi nga xam ne moom nga war a topp. wala dafay neewi. daa pikiir fi mu dafa laa est-ce que laalul benn. est-ce benn. far far far mooy. moo doon pikiir boppam. ah yaay pikiir sa bopp. ñoo am ñoo ñooy ñooy ñooy kii sa da ngay dem ñu pikiir la tamit. ah, ah mais mënoo chaque repas nga dem. mënoo chaque ah, dépendant yi. waaw mhm. ñoom aussi ku ci ku ci am jabet war nga xam balaa nga pikiir. Euh, balaa ngaa xewlu da ngaa pikiru ba noppi. Mm. dangay dem ñu jàngal la. ah normalement dañ la koy jàngal. waaw ah, moom koy jàngal. Ah, waaye boo njëkkee mën nga pikir foo xam ni. Euh, du foofa boo ko defee comme ni daal suma rakk bi day neewi. parce que ñoo xam ne il faut ñu jël insuline bi. loolu dafa dañ dépendant quoi euh, du feebar bu ñuy faj ba mu wér mais feebar la bu nga xam ne ni peut-être mën nga dundox moom. Mm-hmm. comme yeneen feebar yi mën nga continuer dundox moom. Mm-hmm. boo respecté liñ la wax. régime bi. ñoom nag fu mu nekk nii peut-être bëgg nañ ku leen gën a taxaw. Mhm. ci wàllum prise en charge bi. parce que mhm. lu am solo la. Mhm. donte démb sax directrice bu Abass Ndao mi ngi dalal xel yi nee na ministère dina ci def ay ay ay jéego. Mm, wàllu matériel bi mu mu renforcer ko mais est-ce que doy na. parce que bu ñu fàtte ne diabète du Dakar rek de. à l'intérieur du pays également am na ñu ko fi ñu ko fi dund. xam nga ñi nekk Tëngéej euh, tàng yooyu bu ñu daan faj il faut ñu ñëw ba Abass il fu ñëw ba Abass Ndao Abass Ndao mu jëgg antal woon loolu lépp mhm. loolu yëpp antal ko te yaa ngi wax ne euh, centre boobu nga xam ne fa lañ daan dem dañ ko tëj Elisabeth xam nga jàngoro yoo xam ne lu muy dal nit mi gën di bari et puis et puis bi euh, traitement bi bu kii war a def. régime bi dafa xaw a dafa xaw am ñoo mënuñu ko. waaw dañuy wax ne euh, du feebaru du feebaru baadoo la. dañ koy faral di wax ay crudités ngay lekk ak salaat. yooyu hmm. am na ñoo xam ne mënu amuñu ko. wala nga sa mambay nga war ko tiimloo ceeb nga nekk ñetti ñetti dànk nga ci war a jël xaw ma xaw ma ñaata ñaata kuddu nga ci war a mën a xam nga xam nga ne kooku moom moom mais nag jàngoro la donc yow bu la yàlla na toog peut mu dal la. boo suivre traitement bi mën nga si génne. parce que am na ñoo xam da nga leen di xool doo doo sentir ne feebar baa ngi ci ñoom. Mm-hmm. Euh, doo ko sentir parce que. seen régime dañ topp seen régime. ñu bari bari ñu ngi ñu ngi jabet. romb la nga yaakaar ne jotu leen. waaw or que dañoo topp seen régime normal. mais ñooñu nit dañoo am régime ba. waaw am ñoo xam ne. ba pare baaxoo di entraîné nag bañ a mel ni man. voilà ok dee leen dem boo dee occasion boo leen am dee leen euh, entraîné entraînement du rek. Mm-hmm. soosu daal di daw jëmale fajar déedéet. mën nga même li ngay marche randonnée ah, sax tàggatu la. tàggatu la del dox. wàcc di jëkk jékki gaar gaare oto yi di dox. dox lu sóori oññeekuwaat. loolu dala si dala si dala si muccal. dem ci saal yi si la bokk l'essentiel da ngay ñàkk. moo gën nga voilà mm-hmm. suukar si concentré sa yaram loolu baaxul. Mm-hmm. ba ñu waxee suukar bu leen foog na mooy suukar bi ngay suukaree sa sa ndékki rek. non non. ceeb bi daa am yu bëri dañoo am suukar. donc da koy réguler. Mm-hmm. am na aliment yi wex xat. te bu ma hmm? déggee nii de mu ëpp suukar yëpp ci laa ci ne doy na. donc nañ nañ ci moytu parce que bu ñu demee ba ne wax fa dëgg neexee la euh, bés bu yàlla sàkk moom dinañ dagg benn ba ñaar ci ay baaraam moom. Euh, donc chaque jour laa la wax chaque jour. chaque jour donc euh, bu amee taxaw ba ca war peut-être duñ yegg foofu. duñ yegg fu ñuy daggee. centre boobu nga wax bu fekkoon mi ngi continuer di fonctionner ba léegi xëj na duñu yegg fu ñuy daggee parce que mën nga dund ba yàlla jël la te jabet sax du la du la yóbbu. donc te duñ dagg sa benn cër waaw donc euh, buñ demee ba tey jàngoroy euh, gi gii nga ma ko boobu nga xam ne nit ki mën na ndax moom di am doom te du ko laal. te sa doom da ciy mucc. xam kon euh, avancement am na. médecine moo avancé. médecine avancé na. Mhm. donc mën nga dund nit ki mën na am jabet dundox moom ba yàlla yóbbu ko te du ko yóbboo si jabet te kenn du dagg cëram. mais loolu nag prise en charge bu am solo la laaj donc te ñëpp xam nañ ne Sénégal moom feebar faju wax fa dëgg neex yàlla. Mhm. Euh, xaw na fee metti lool xaw na fee metti euh, mais nañ ci def effort. parce que nag le 14 moom mooy seen journée journée bi ñu jagleel xeexum jabet bi. donc le mhm. quatorze la. nañ ci mhm. bàyyi xel bu baax. Mhm. bépp tawat bépp bu metti Sénégal ko a jël prise en charge. mais nag amu boobu émédia émédialisé yi ñu ngi jooy. <laughs> tawat googu ñooñu moom dama leen ñamu dal ña nga sonn seen fit laaj leen fan leen sànni fee. sa angaar ba sa angaar ba. bu ñuy dem ñu leen di agressé. sa hangar ba donc nañ leen nañ nañ bàyyi xel waaye moom agresseur moom bi ñuy agressé ba agressé hémodialysé nag wax fa dëgg neex yàlla. Ah, ñoom am dëgg de. duñ xam ci loolu ñoom nañ jël li nga yor rek. Euh, Jili Fall na wax nga dëgg suba la bi. Ah, waaw suba Jili Fall na bien. incha allah Pape Iba Ba jërëjëf waay. Mm-hmm. Euh, Pape Iba Ba depuis Guet Ndar moom lañuy la ñuy suivre jërëjëf gis naa sa vidéo bi ma defal waaw jërëjëf sama goro boobu moom nee sama doom lay takk. <laughs> mari mari bal nee na lay takk. cee. moom lañu ko bëgg a takk sa papa dugg ci moom. Hmm? Hmm. moom laa koy wax nee na damaa fiir ba damaa dof ma nekk xamagoo ci dara. papa poul de ngay yàlla baax na. yàlla euh, ba ñu ziyaaree ñëpp ñu ñaan. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, moom i Bousso Seck yaa koy wax quarante quarantième jour bi daanaka yegg na ba noppi. Mm-hmm. bu leen ko fàtte seen seen i ñaan. moom ak euh, sunu papa Thion. fa ñu nekk gën a leen fi jóge ñun ak su euh, suñu waajur yi ñu jiitu mhm. euh, suñu mag yi suñu rakk yi suñu xarit yi mhm. fa ñu nekk gën a leen fi ñu jógee yàlla àtte leen si euh, yërmandeem mhm. xare leen àjjana ñu nit bés bu ñu sàngoo suuf dañ koy faral di wax ma dama koy ñaan saa su ne yàlla na bés bu ñu sàngoo rek suuf yàlla ñu yàlla baal yërëm ñu te jéggal ñu mboolem bàkkaar wala njuumte boo xam ne Euh, dinañ ko defi ji si kaw suuf ndax nag ay jaam yu xeebu rek lañu. Mhm. waaw donc ñun ñoo ñu ñoo ñun ñooy def bàkkaar. Mhm. yàlla di ñu jéggal. Mhm. bàkkaar bu amul woon moom. yaakaar naa ne euh, yàlla ji euh, xam naa ne sax boobaa moom it du am lu ko neex. parce que moom it yàlla ji si boppam moo gën a bëgg di wane boppam. tooñ leen ma di ma baalu. ma jéggal leen. donc ñaan leen ma voilà ñaan leen ma ma may leen. te ñun nag bu ñu defee bàkkaar dañ koy ñaan ngir mu jéggal ñu voilà euh, ñi nga xam ne nag ñoo nekk ci lalu hôpitaux yi euh, yàlla taxaw leen fëgg seen bopp ba ñu dellu ba ñu delluwaat seen njaboot. Euh, ñu am ak wér ña nga xam ne caabi féete na leen ginnaaw it yàlla may leen ñu génne. ndax foofu nag wax dëgg kenn du ko yéene kenn. ñun ñi nga xam ne jëluñu gaar yi ñu jëluñu yoon suuf gi nekk rek waar xaw ma. donc yàlla may doole gi ñu fi desee may ñu saxaaru poos gu ñu mën a affronter ñetti doomi yi may ñu ay kër ak ay ndaamaar yi ñu moomal suñu bopp yu bari ñu mën cee suturlu ñun la woon yàlla mi am jàmm te ko may jàmm nga am jàmm yàlla saxal jàmm ci senegal ba altine incha allah.